maire bu ville de Dakar si ndigalul maire bu commune bu Yoff ñu ngi nuyu ku nekk si turam ak santam c'est bon c'est bon allons ñu ngi leen di jaajeufal si sen di am contentement bu wër di len wax ne nak solos euh daje tay ji

mu barkel bon si ni ki noonu ngi jox cadeau bi euh, ki ñu dalal ci dëkk bi muy monsieur le maire euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñun dafa am luñu baxo bala ñuy tambali dañuy def ñaan ñaan gi nak yalla ki ben la ñi nga xamne ne ci yonent sallallahu alayhi wasallam wala benen yonent bi nga xamne ne ci lañu ñu aju ku nekk ñaan ndax ben yalla la te rew mi ñoko ko kon ñu and def ñaan ku ci nekk rek ak euh, fi nga bok tamit ñu and def ñu fatiha ayatu kursiyu di xlaas falaxe ak naa suñu tëje ko salaatu fatiha wala salaatu ala nabi def ko haddiyee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan maolaana subhaanahu wa taala sumba yàlla na ci yàlla def barke yàlla def ci sutura ak jàmm ba ñépp jëriñoo ko ba ci seen doom ba ci seeni sëti sët ci barke ki nga xam ni ci nga yaakaar 있습니다. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu baax seen tur ak di leen sant di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi li ñu fi boole tey mooy waxtaan woo xamante ne bëgg nañ koo am ak jokkalante ay xalaat ak ay mën-mën ngir dafa mel ni bu yàgg ba léegi jigéen ñi ñi ngi yëngatu ci lu ñuy tuddee mbootaay kenn ku ci nekk am ci looy de looy jàpp ba ci yàgg xam ni su ma ci wéetee man dong duma dem ñu booloo di am nu ñuy jokkalante nu ñuy organiser woo ba loolu di jur dara ñu di ci dimbali seen bopp di ci dimbali seenu njaboot loolu la ñuy wax économie solidaire dinañ ko gën a xóotal ci kanam mooy économie bi nga xam ni maanaam dépendre ci tàmbali bi ci ay banque wala pre wala dara waaye ci sa ñett dërëm ak ñaar dërëm ci nga tàmbalee kii di jaay fonde kee di jaay jën kee di jaay gerte caaf ba ci yàgg kii di jaay tissu ñu gis ni ñoo bokk koñ bi bis bu nekk ñu daje di dem lente ay xew ak yépp pourquoi pas léegi leneen ngir mën a doon doon gën mu gën a am solo loolu jur na yeneen ay xalaat yu rafet tur bi nag soo ko déggee ñu ne économie solidaire day mel ni réew tubaab yi ñoom dañ koy soog a tàmbalee xam ak di ko jëflante waaye fii Sénégal mën nañoo wax ne fii la fekk baax réew yu bari di ko def ba ci yàgg ñoo gis ni loolu formule la boo xamante ne day tax ci capitalisme bi nga xam ne moom leen nit ñi di dund bopp sa bopp nu may def ba am ba ëppale ñëpp loolu dafa doon beneen yoon buñ mën a jaar ci loolu nag ci la association bu mag bu tudd boo xamante ne day kële initiative yooyu xalaat ak doxalin yooyu ci àdduna bi war a ñëw fii seen Dakar Sénégal euh, ci mois de mais bi ngir def fi benn forum bu mag ngir gën a xool anam boobu noonu lu ñuy def ba mu gën a xóot gën a am solo gën koo dëgëral ci loolu tamit ci la ville de Dakar ni moom dina jéem a tënk xalaat yooyu ak loolu yépp ci benn téere ci benn plan plan bi tamit liñ ci bëgg rek mooy li ngeen ciy wax seen xalaat yu rafet yooyu ñun moom lañ ciy bind rek ngir su ëllëgee mu doon yéen seen jumtuwaay du doon jumtuwaayu ville bi kese ak commune yi waaye jumtuwaayu ñeen kenn ku ci nekk xam ni yoon wi suñ ci jaaree fii ak juróomi at économie sociale solidaire dina jóge ci mën-mën bii mu nekk dem ci mën-mën beneen bu ko gën a kawe su ci kilifa yi réew meeg kilifa yi maire yi jàppee ak kenn ku ci nekk xalaat yu innovant yi nga xam ni moo ci jóge euh, jotaay bi incha allahu niñ ko fas yéenee tënkee mooy dina am ñaari ñaari pàcc bi ci njëkk ñett bopp mooy bii nii ñuy amal nii mooy jotaayu ouverture bi beneen bi ci topp mooy dinañ leen dinañ constituer ay groupe yoo xamante ne dañuy toog ngir gis ni fii kenn ku ci nekk war ngaa am kàddu wax waaye suñ ko defee ndoowee ci plénière bi nii du ci du fi xaj te tey ajuma la ñu ni kon léegi dañ suñ ko defee ay groupe kenn ku ci nekk dinañ mën a déglu xalaatam am na suñuy ja euh, ñu ñuy jàppale ci liggéey bi dinañ bind kenn ku ci nekk la nga indi ci xel ak ci xalaat ci ay kayit suñ daj ñun loolu dinañ ko dajal incha allah suñ noppee ci loolu ñu ñëwaat fii am ñenn ñoo xamante ne faaw nag ñu taxaw jël micro bi wax ñu ñëpp déggandoo ko ni kat man sama mbootaay maa ngi tàmbale woon nii ak nii ak nii jafe-jafe ya ma amoon nii laa def ba résoudre ko ba tey jii maa ngi jóge ci euh, dix mille tey maa ngi ci trois millions wala quatre millions li may dajale di ko di di ko ak sama mbo mbokk mbokki jigéen yi wala mbokk yi ñi ma bokkal li may li li ma euh, groupement ñi ngi ciy def sàngam mën nañ cee jënd xari tabaski ñi ngi euh, su école di tijji ñi ngi ciy def lii ak leneen ak leneen leneen lim mën a def su ko defee témoignage yooyu dafay intéressant ndax dinañ ci déggee koo xamante ne amaana ni muy doxee gis nga ni man foofa yeggaguma fa wala boo fa laa te moom weesu na ko te solution bi trouvé na ko ba jàll yooyu lañ bëggoon tamit ci ñaaree ci ñetteeli jotaay bi loolu lay doon su ko defee ñu mën a euh, añ xewlu daal di yeeweeku balaa moo gën a naaj lool lool lool donc noonu lay lay tëddee incha allah rabi kon euh, monsieur le maire dañ doon gën a fixé waat euh, compréhension wu liggéey bi ñu fi indi di di fàttali ni maanaam du plaidoyer du du ay assises la ñu organiser waaye ñun dañoo bëgg a dem ci lu concret ci lu wér ci lu wóor loo xamante ne dañ koy bind. suñ ko bindee kenn ku ci nekk ci yéen yore ko ñu xam ne ñun nii lañuy doxee nga gis ci ay initiative bu maire sàngam maire be maire be wala euh, groupe bu jeune bële nii lañ def te danañ déglu dégluwaale xale yu góor yi danañ dégluwaale xale yu jigéen yi ndax day mel ni renouvellement faaw mu am ci milieu bi tamit incha allah yooyu yëpp dina ñëw euh, leeral boobu da ci doon am solo balaa ñuy jox ki nga xam ne moo ñu dalal euh, muy maire ki représenté maire Yoff Serigne euh, Cheikh Tidiane Ndiaye kon euh, bismillah ñu ngi lu baax. Euh, xanaa ñu delluwaat rekk di nuyoo te di ñaan tamit suñu mbokk yi nga xam ne. waaw kon suñu mbokk yi ñu ñu dégloonte ndax yaakaar naa ne ku bàyyi sa kër bàyyi sa yitte ñëw ngir farata war nga fexe ba booy dem am lu yóbbaale kon ñu wax ñi ci biti rek ñu déglu euh, yaakaar naa ne ni ko directeur bi waxee euh, campé na débat bi wante balaa ñuy tàmbali rek ñu dalal leen

te di leen yëgal ne loxoom mu ngi ci biir encouragement am tam mu ngi ci biir ndax tey ci yoof ñun am nañu suñu présidente muy Roxee sec ñi koy wax Rocky ndax xam ngeen lébu moom da yàqatur waaw <laughs> ak tamit euh, adjointe au maire muy soxna ndak mu ngi fi euh, man aussi adjointe adjoint au maire la kon ñu ngi leen di dalal càmm beneen bi mooy dama waaw dama wax léegi directeur bi ne ko waaw mbir mi xanaa soxna yi rek ñoo ko moom <laughs> mu ne man ndax am de góor ñi ci lañu bokk mais gisuñu leen euh, muy équation boo xam ne dañ ko war a poser parce que lu toll ni solidarité ah économique bii nga xam ne moom la ñu tëral euh, ñun dañu baaxoo souvent yaakaar ne ñun bokk ñu góor ñi ñoo gën a gaaw a xët-xët ñoo gën a gaaw fëgg dënn wante soxna yi dañ ne organisation bi mu ak planification mu ngi commencé ci biir kër xëy na sax li leen di jox du mat ci dépense mais yéen a koy korkori ba kenn du yëg ci sutura te ñun suñu maam yi loolu lañu ñu xamaloon ñu dem ba jëmm jamono ñu ne ah nañu organiser suñu biir ndax kat xew day bette te xew boobu bu ñëwee yéen ciy mën wante am na ci tuuti ñuul ñuul parce que wolof dafa wax ne ndaa looy duy te boo ñëwee ngàcce ko dara du fa des kon nag ñu ne des ngeen changé soppin ni ngeen di doxale ñu changé ko bu ñu jógee ci kër ñu dem ci penc mi nañu organiser mi mi ko tamit ñu la religion solidarité kon moi je pense que euh, yéen ngi ci ngi jour bu fin de semaine ak événement

waaw kon nag moom di leen di tëralal principe yi wax ne fi ngeen di jaar mais autorail bi bu fekkee da nga jóge fi war a dem ndar résultat bi mooy bu ñu eggee ndar képp gis ci sa bopp mais ci yoon bi nag dafa am ay gaar te gaar bi dafa am ñoo xam ne dinañ dugg ci biir dina am ñoo xam ne dinañ génn mais yaakaar naa ne bu ñuy àgg foofu ñëpp dinañ fa egg pour gis seen bopp tant que génnuloo rek ci principe yi nga xam ne moom la ñu la tëralal kon vraiment encore une fois pour bañ a guddal ndax li ma je trouve que c'est une vision et vision la bo xamné euh tradition nangu na ko diine nangu na ko nañu ànd di yëkk ci ndon di jóorindoo def ko ci fulla ndax bu ñu ne ñepp bo interroger histoire jigen ñi ci mën ci fay bor parce que am nañu jom te luñu ñu def ko am na benn dëkk bu ne ci wetu Anvers en Italie ñooñu dinañu séqante ay milliards mais kenn du bind kaddu rek dañuy jaay ay jamono di def lépp mais bés boo nee bés sangam dinaa fay fayuloo moomati sax ngay xaru ji ndax dañ lay génn ci kii bi dañ lay excommunier dootuloo bokk te ñun suñu mag yi loolu la ñu xamoon euh, lu ñu diggee def ko. ginnaaw li yàlla dogal mhm. te vraiment ci yéen lañ ko yaakaar waaw kon daal duma guddal maa ngi ñaan lii ngeen sumba waxuma fii mooy mu def tâche d'huile ci continent bi yëpp ñu jàpp ci parce que ñun am nañu suñuy tradition ñun solidarité la ñu xam Europe léegi bopp sa bopp waaw dangay gis màgget moo xam ne sax di ngeen bokk benn immeuble yenn saa yi mar de yi dina feebar wala mu nekk foo xam ne doo fa gis du gis doomam du gis papam du gis kenn même boo koy jàppale sa ne ko mu yégal la sa bagage mu ne ndax dama la ko laaj ndax maa la ko sant hmm? loolu ñaaw na ndax man dégg naa ci benn mag mu ne euh, hôpital Abass Ndao euh, ñu ngi ko tuddee woon repos Mandel repos Mandel parce que ñoom dañu waxoon ne mag ñi nga xam ne dem nañu ba màgget nañ leen di yóbbu foofu mais magu lébu yi ñoo ne ku ko def ñu defante ko ak yow ñun xamuñu loolu waaw te loolu nag nit ki booy jëli dafay fekk li nga am bu baax da koy téye ba pare dooru yóotu leneen li kon nag yàlla na yàlla mottali yàlla na leen ci yàlla defal ndam yàlla suturaal leen ba kenn bañ ko wuutu lépp loolu leen ci yaakaar ci yiw moi je pense que bu ñu tracé yoon bi bu ñu ci jàllee ñëpp dinañ ci gis seen bopp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah moom de day mel ni bëgguñu woon sax mu mu noppi ndax tellement euh, li muy wax xam na ko te mi ngi gën nañoo jàng ñun ñëpp kon euh, dañuy jox ki fi nekkal ARD muy agence régionale de développement miin ngeen leen fii ci Yoff ndax ñi ngi ànd ak yéen tamit ci euh, plan de développement communal bi ñu ngi beaucoup bu baax monsieur le maire Seydina Issa Laye ci ouverture d'esprit bi mu am ak nam ma liggéey bi mu nam ma liggéey yàlla na ko ci suñu borom jàppale bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum donc ñu ngi leen di nuyu ci tour tur ak seen sant euh, di si wéru jigéen ñi bi ñu nekk muy le mois de mars yaakaar naa journée de la femme weesu nañ ko 8 mars mais ku ne mars sa xel dina dem ci jigéen ñi donte sax pour man euh, at bi yëpp lañ leen war a célébrer waaw mais bu ñu ci jógee benn fan rek ci 8 mars yaakaar naa du doy jàppale na daal yéen 365 jours yëpp seen bés la gàcce suis yéen euh, maa ngi tudd Samba planificateur au niveau de l'agence régionale de développement euh, teewal fi directrice Yacine Tine mi nga xamante ne euh, tey dafa empêché de dem Sali, pour fekk ji benn séminaire bu ville de Pikine waaye yaakaar naa trois jours yu ñu wees mi wax atelier yi di def bi ni nga xamante ne la ko ville de Dakar di leen jaajëfal si teewaay bi macha allah gis nañ mobilisation bi di ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla moo am jeexital si li nga xamante ne moo ñu fi tax a dajale tey. wax na ko directeur wax na ko léegi si biir ay waxam bu ne nee économie sociale solidaire day concept bu bees naam waaye du loo xamante ne waa Sénégal dañ ko umpale wax na ko si biir ay waxam ku ne mbootaay ku ne euh, GIE. ku ne natt yaakaar naa jigéen Sénégal ay at ci ginnaaw ñu ngi siy yëngatu di si faj nag ay buumu gàcc yu bëree bëree bëree bëri bëri bëri bëri yaakaar naa bu loo nag seen natt yooyu seen mm, euh, calebasse yi ngeen di def tontine yi yaakaar naa gàcce dina bëri si biir famille yi mais euh, macha allah bi ngeen teelee am xarañte di def solidarité boobu seen biir entente boobu pour mën a euh, njaboot gi donc si loolu nag si la.

yaakaar naa moom mooy mooy collectivité territoriale bi nga xamante ne moo njëkk a def loolu si si si Sénégal mais tamit ñu ñaan aussi commune yi fi nekk ñu si ville de Dakar pour que chaque commune tamit jéem a am son plan local de développement pour l'économie sociale solidaire donc loolu daal moo nekkoon euh, li ñu fi dajale tey muy atelier de diagnostic et de planification ñu ñaan nag jafe-jafe yi ñun ñëpp nañ ko comme ni ko directeur waxee rak sànq si biir ay waxam nañu gën a insister ci les mécanismes innovants yi ngeen xamante ne yéen yéen a ngi koy jëflante si seen biir ay mbootaay am ngeen ay calebasses am na daal ay xeetu jëflante yoo leen di jëflante yooyu lañu ñu bëgg a bu mois mars te dañu jàpp ne ñun dañu ñëw si yéen tey pour jàng parce que li ñuy wax yenn ko yéen ko gën a xam donc tey dañuy taataan ngeen wax ñu yéen ana yenn pratique ana yan méthode ngeen di jëflante seen biir ay mbootaay pour mën a doxalii di économie sociale solidaire ñu leen di jaajëfal bu baax ci teewaay bi di gërëm tamit ville de Dakar bi nga xamante ne moom moo associé ARD ak yeneen service technique yi ci liggéey bi di ñaan yàlla rek lépp lu ñu fi euh, taataan mu doon njariñ ba li ngeen xamante ne moom ngeen bëgg bëbët ci seen ay euh, ay mbootaay yàlla mën ko euh, sottil ci barke Seydina Mohamed waaye tamit si euh, barke njaboot gi nga xamante ne moo tax ngeen di daw moo tax ngeen di sonn jërë ngeen jëf. ok jërëjëf euh, monsieur Sambou donc euh, ci jotaay bi teew na fi madame madame Ndiaye maam maam Ndaw coordinatrice Awa Sow bu Wakam man madame Awa Sow suñu yaay ak ndey faatu Ndiaye ANSD ñoom ñoom ñoo yore wàllu. Euh, agence ay statistique ak yooyu ñoom moom ñu mu ñuy taa jàppale tamit ci wàllu woowu euh, kii nekkaat fii mooy madame Sow moom mooy suñu mag ci direction bi bi nga xam ni moom laa jiite wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax moom it muy yëngatu ci ci loolu bu baax dafa yor ñaari casquette tey ñu ngi koy sargal te di ko sant di ko gërëm kon ñu jox suñu xarit bi euh, Pierre Sarr mu ñëwaat tuuti rek ci benn présentation boo xamante ne day gën a day dënk rek lañ fi jot a wax ngir ñu mën a daal di dem ci atelier yi incha allahu rabbi bismillah Pierre. Euh, ngeen baal ma balaa may tàmbali présentation peut euh, ma ñaan may ñaan peut-être jigéen ñi ñu tàccuwaat seen bopp. li tax ma ne la tàccu leen seen bopp mooy ñun wër nañ arrondissement yëpp. te macha allah li ñu li ñu gis fii tey sedd na suñu xol wax dëgg yàlla mobilisation bi gis nañ ko madame ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen sargal si journée de la femme bi ñu weesu ak si mois de la femme bi ñu nekk ba tax na présentation bi may waaj a def bëgg gën a leeral rek concept économie sociale solidaire naam tour bi moo fi bees mais ñun si lañ judd si lañu màggee te miin nañ ko euh, présentation bi damay jiite si damay commencé si économie sociale solidaire leeral que su ma paree wax si Sénégal ni mu koy jëfee su ma paree wax plan bi téere bi ville de Dakar bëgg bëgg bëgg bëgg bind si wàll wi su ma paree dem si objectif yi li ko tax li tax a jóg atelier bi dem si niñ koy niñ koy doxalee état d'exécution wu travaux yi ñëw terminer si chronogramme journée bi waaw comme niñ ko waxee ak kilifa yu baax yi niñ ko niñ si niñ ko expliquer tout à l'heure mbir mi lu ñu miin la muy jàppal ma jàpp muy bépp groupement demal bépp groupement bépp mutuelle bépp coopérative bépp association bépp fondation boo xam ne mu ngi yëngu si jàppalante di dimbalante solidarité demaatal demaatal voilà sànq ki fi teewal gouverneur muy Daouda leeral na que nguuru Sénégal créé na cadre institutionnel bu tax ñu mën a wéy si wàll wi déjà dañu commencé par taxawaayu setlu wax né dernier recensement bi ñu def muy agence nationale de la statistique et de la démographie ñi yor walu xayma wi dañu gis ne 97 xawma nak xaw ngay téké ci wolof sama wolof 97 voilà téeméer bu <laughs> ma sha allah si euh, économie sénégalaise seetlu nañ ne téeméer boo gis si si juróom-ñeent fukk yi ñoo koy doxal nguuru Sénégal teg aussi benn plan bu ñaan plan Sénégal émergent ñëpp war si tënku mu ne dafa bëgg fii ak 2035 euh, société bi askan wi ñu ñuy jàppalante si ànd si dëgg aussi si état de droit si nonu si le créé en 2017 ministère bo xamné lolo ko tax a muy économie sociale solidaire mu don lu njëkk mu toftal si aussi lettre de politique sectorielle wan ka cadre bi mu wan ka yoon bi mu jaar pour mën doxal gis-gisam ñu demaat aussi assemblée ñu euh, voter fa ben loi bu ñaan loi d'orientation relative de l'économie sociale solidaire pour que l'économie économie sociale solidaire ci réew mi ci niki un dafa am article bu article 12, bobu mo interpellé collectivité territoriale yépp au Sénégal tënk leen si ñoom ñu gor plan local de développement de l'économie sociale solidaire ba tax Euh, ville de Dakar si bopam aduna wërngal këpp dañu seetlu ne économie sociale solidaire yag na fi te ni muy doxé am na fi solo si ni si lolu si lañu ñu ne nañu sumb dajé bo xamné ne bi yépp ñofi dajé daje si Dakar pour waxtaan si nu ñuy jëmee kanam économie sociale solidaire loolu euh, daje boobu ñu ngi koy war def au mois de mai 2023 si fan yi di ñëw rek la ci cadre bobu dal ci looloonu yëpp ci la ville de Dakar sukkandiku nee na def plan boo xam ne jot na ñu jëmele fi ak 2028 euh, ñu ñu tëral doxalin bo xam ci lañuy teunku pour jëme kanam économie sociale solidaire li tax plan bi nak moy surtout set ay mécanismes de financement yu efficace yu innovant également bokk na si li tax jug plan bi ville de Dakar dafa bëgg tënku si li nguuru senegal wax muy jëm kanam économie sociale solidaire bokk na aussi moom it si li tax a jug plan bi muy dinañu waxtaan ak nit ñi sensibiliser leen jéem leen a seet lu ñu teg leen si yoon boo xam ne dinañ gën a jëmmal lañuy def gën a xam solo si su loolu weesoo dinañ jéem a waxtaan ak nit ñi. proposer les projets projet ak programmes programme yoo xam ne war na mën a méngoo fekk fekk si leen si li def entre autres objectifs bokk na si objectif yi aussi momi dinañ jéem set ay recommandations ay dictées ñu jëm ko digal kilifa yi ne len yoon wi suñ ci par rapport ak diagnostic bi ñu wara faire def après waxtaan ak yeen dans une démarche inclusive et participative suñ ko defee fait, pare recommandations yi dinañ ko kilifa entre autres entre autres objectifs te boobu mooy dernier bi sax daanaka dañuy mécanismes dañuy il faut ñu suivre que du yam rek wax ba mais dañ koy 2028 voilà demal état d'exécution demal waaw liggéey bi yàgg na dañu commencé par def ay tournée tournée de commission de la mobilisation des acteurs de l'économie sociale solidaire loolu pour waajal forum bi la woon wër nañu gox-goxaat yi daje nañoo kilifa yi gox yi muy maire yi ba si maire bi recevoir nañu sensibiliser woon nañ ko si loolu aussi yamuñu si def nañu aussi beneen dox yónni suñuy ndaw ñu ñëw def benn sociogramme waxtaan ak ñii di yëngu si économie sociale solidaire ñooñu la ñu doon wooye les coachs territoriaux demaatal ba tax na beneen jéegu bi ñu bi ñu bi toll tax tey mooy atelier de diagnostic comme ni ma ko waxee sànq dem nañ si arrondissement yi euh, parcelle lañ jëkkee ñu dem arrondissement wu Grand euh, Dakar Plateau dem si arrondissement Grand Dakar te tey la ñuy terminer par arrondissement wu Almadi pour daje ki yéen bëgg nañ aussi li ñuy tënk fi ak diir bu gàtt fi ak weer ñu dajewaat man leen ko jébbal def restitution voilà. voilà su may tënk nag jour bi journée bi tey ni muy bés tey bi nu mu war a déroulé woo mooy ginnaaw allocution yi ak sama présentation bi may def peut-être dinañ def affaire u caameen ak affaire u jéeyeen ñu def li ñu gën a bëgg ñoom muy ndekki <laughs> suñu paree ñu commencé jublu si liggéey bi nag def ay travaux de groupe travaux de groupe yi dañuy jéem a xàjjale mbooloo mi ah 4 ou 5 voire même 6 groupes pour euh, liggéey bi gën a mën a dox am naa sunu ndaw yi ñu andal ñom dinañ leen ci fekk ci dinañ leen expliquer nan nañ koy doxalee su lolu wesso ñu wara a ñëw fii si salle bi encore def restitution manam li ñu tatane yeb ci ku nekk wax ci sa xalaat ñu ñëw joxar leen cadeau ngeen restituer que su ñu defee restitution bi ba pare ñu defaat beneen affaire u caameen ak jéyeen muy añ doog a ko donc si si gàttal vraiment loolu la ñu indi woon euh, voilà illustration bi nag dama ko bëgg lool parce que euh, il faut ñu ñu bàyyi si xel euh, li mooy jàppal ma jàpp vraiment yéen da ngeen di jàpp kilifa yi jàpp ñu mën a jëmale kanam économie sociale solidaire voilà maa ngi leen di gërëm di leen sant. xam naa liñ doon liñ doon dolli rek monsieur le maire mooy jéem jéemoon na dañoo xasoon a décider ni ci ndigalu préfet bi ci boppam sous préfet bi ni commune Yoff lañuy defee daje arrondissement bi. biñ ñu waxee ni saal bi day xat ba li ñu ñu fi war a daje yëpp dañu fi mën a daje. terewut ñu ni woon nañ seet feneen waaye wër nañ wër fii ci biir commune bi mu xaw a jafe euh, looloo waral ñuy jéggalu ñuy toog ci bâche bi nekku leen ci biti yéen a ngi ci biir comme ñëpp te di ngeen ci xam dara léegi suñ commencé suñ wàccee foofu ñëw ñu ngi leen di jéggalu tamit foofu waaye soo ñëwee ci kër dangay toog ci ëtt bi bii mooy ëtt bu njëkk bi ñëpp xajuñu ci ñu dem ci beneen ëtt bi ci bi ci bi ci bi ci topp waaye ñun yéen lañ fekk si ñi nekk ci biir ëppale wuñ gënuñu ñoo gënuñu ñoo xeddi ci ñun ñi nekk ci bâche bi toog kon incha allah du tee it su waxtu jox jël kàddu jote it ñëpp dinañ mën a ñëw do ni barab bi bindoo rek moo ko waral waaw loolu lañ doon jéggalu ñëpp waaw waaw kon bisimilah ñu jox maam Ndiaye madame maam Ndiaye Ndaw mu dalal jigéen ñi coordonnatrice bi ñu soog a jàll ci travaux de groupe yi ñu ngi jéggalu bu baax lool. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp nag jigéen ñëpp nag laay wax maa ngi nuyu ñëpp. Euh, di jéggalu directeur dama ko ne tey déjà sunu mois la ñu def mobilisation bu toll nii ñu war a toog góor ñi kese wax ñun ñi ñëpp di jigéen ah du ñu war a kontaan de te nag du sama jikko may denc dara góor ñi paasante nañ ko jox paas sa moroom ñun ñëpp joxuñu kenn bëgg ñu jógaat def lii te ñu waral nag mbaboor mi dañu nekk di organiser euh, mobilisation bi jóguñu rekk ku nekk tëb sol sa mbubb xamoo foo jëm ba daanu si maire déedéet dañu jël suñuy téléphone nekk ay responsable si biir fii ñi si table ji ak ñi si biti kenn di dugal crédit dañu dugal ay crédit di mobiliser wu di woote ba tey si fajar gi di woote bu leen tardé 9h nañu fa fekk sunu saal dafa war a fees kon nag bu ñu ñëwee war na noo am askaddu man suis coordonnatrice la coordonnatrice euh, femme de développement na mais femme de développement coordonnatrice arrondissement des Almadies coordonnatrice communale bu Nous ñu yëngu ci développement def nu yaakaari la bëgg ndax ba ñu que nu danoo wéet ba nous avons sunu mi ñuy mairie de Dakar kontaan nañ si lool ndax cherché wuñu wala demandé wuñu lu dul ku ñu accompagner ndax jigéen tam dooleem bariwul dañuy bëgg ñu ngi si kàllbaas yi koo fi wut fii ay présidente ay responsable kese ñoo fi nekk koo si gis am na jour boo xam ne daf la ni sama kàllbaas la wala sama avec la wala sama mbootaay la wala damay natt dajale ay mbooloo nag bëgg li ñuy def lool kon bu nu gisee économie sociale et solidaire mu jógee si mairie xëy na dem na jóge na ministère mais ñëw na si mairie de Dakar mu boole ñoog ay agent yoo xam ne déglu nañu man ça fait une semaine bi ma xamee Pierre mi tey leen gisante mais mën naa wax ça fait une semaine ñu ngi téléphone di wax mu jaar SEDAF centre départemental jigéen bi nekk parcelle ak madame Diallo madame Diallo boole leen ak man parce que arrondissement bu nekk nag bin ñu bàyyee ba léegi terewul dañu organiser wu ndax femme de développement yi par arrondissement am nan arrondissement am nan ay communal am nan département am nan région de Dakar région bu nek tay bo fa demee laajte xana nga baña xam di nga fa fekk coordonnatrice commune bu nek bo fa duggee di nga fa fekk coordonnatrice li nak day wone engagement femme yi femme de développement engagement bi nga xamné tay ji lu nu tak bu né nañu jog ndax rek la dara ndax bo né femme wax nga famille sank amna na deug la góor ñi ñooy yaay ñun ñooy seen yaay góor ñi ñun ñooy seen soxna kon boo waxee jigéen rek foog naa ni dajal nga ndax tey luñ fi jële mooy avantage yu jeune bien que jeunes yi am na ñu ñëw am na ñu ne si biti comme am na ñu ñëw fii mais jigéen ni mu ëppee si société bi noonu la ëppee fu nu taxaw dañ leen di ëpp dominer leen nag si façon yëpp ngeen di ñu cëral man ma bëgg ngeen di ñu cëral di ñu jox cër ndax noo topp nit une semaine

table ji ñuy wax mais tey jii bu ñu waxoon ba mu kii ñu jox euh, roqi damay kontaan ñu jox awa saw dama naan waaw waaye présenté ñu rek ñu mel ni ay meuble ngeen baal ma <laughs> di wax ñu jërëjëf. waaw loolu ñu ngi ciy jégalu ñu ngi ciy jégalu bu baax waaye dañoo ni moo tax ñu tënkoon jotaay bi ci tàmbali bi daa am daa am kàddu yoo xamante ne foofa foofa. yow yow foofu yaa koy jiite mooy ñetteeli parti jotaay bi nga xam ni ci la ñuy déglu jigéen ñi moo tax ñu bëggoon a jël caucus boobu noonu réserver ko foofu fii suñ tijjee nag xam naa yàlla dogal ñun ñuy kii waaye euh, seetlu ma woon ne sax ay góor kese lañ mujj jox kàddu gi waaw <laughs> seetlu moo woon yàlla xam na ko donc do do waa te moom mii jigéen la fi toogal waaw man mi euh, yaakaar naa ni madame Sow su fu mu nekk gis ngeen fi ma ko fi ma fi ma ko teg waaye liñ ci jublu woon mooy suñ yegsee nag ci waxtaan bi nga xam ni dëggantaan moo ñu tax a jub maanaam nag léegi ñu jox ko kàddu gi mu présider jotaay bi su ko defee ñu kiiwante loolu lañ ci jublu woon rek waaye xam nañ liggéey bi ñu ngi lay sant bu baax madame madame madame Diallo wax nañu ko moom mi tamit euh, Pierre mi nga xam ni moo moo doon jokkoo ak yow leeral nañu liggéey bi ñi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm ñi ngi jégalu loolu bu baax jërëjëf. kon xam naa ci li ñuy li ñuy tàmbali kon mooy ñi mën a des ci salle bi xam naa ñaar ba ñetti groupe dinañ fi mën a nekk am yeneen groupe yoo xamante ne ñuy nekk ci biti xam naa mën nañoo def huit groupe sax. su ko defee ñu mën a toog nag taay waxtaan boobu noonu bu njëkk bi soo ko ñëwaat ci saal bi yeggale waat incha allah xam naa ni am na ñu ñuy jàppale ci liggéey boobu suñu yegsee ci yéen rek ñu déglu leen incha allah jërë ngeen jëf kon monsieur le maire nga nga tëj bismillah ñu déglu dafa mel ni euh, directeur wax na yëpp euh, xanaa ñuy dellu di sant rek ak di gërëm di fàttali suñu remerciement di ngeen ñëw fekk suñu fii ci mairie bi te di sant tamit suñu jarbaat suñu jigéen bi jël parole wax léegi ci soxna yi euh, sax xëy na fàtte wante ñun lépp lu ñu def rek pour yéen la waaw ndax euh, man yaakaar naa ne sax Euh, benn année ñu naan année de la femme wala benn fan ci femme wax boo xam ne matul la waaw ndax lépp ci jigéen la société bu baaxee jigéen la kii jigéen ki nga xam ne tamit fépp ñun bu ñu jaaxlee yéen a ñuy dalal waaw ci biir ak ci biti ku fëgg dënam boobu dafa toogul ak soxnaam ñu wéet rek waaw kon ñun dañ leen di ñaanal yàlla toujours di tamit di leen encourager te fas yéene ak yéen ci liggéey bi boo leen fa leen dem ba leen gëstoo incha allah rabi di ngeen ñu fa fekk waaw kon yàlla na yàlla mottal seen yéene yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na ngeen egg ni yoon barke yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag ñu def suspension bi ah jubluwaat ci deuxième phase liggéey bi Euh, Salam alaikum. Salam alaikum. Je suis le conseiller municipal, président de la commission économie sociale et solidaire. Je suis ici dans commune de Yoff. Je suis un atelier pour l'économie solidaire. Je suis un atelier pour l'économie solidaire. Je suis un atelier pour l'économie solidaire. atelier bi sax xeyna duma ci sole torop torop parce que directeur bi bi nga xamantene mom moy ndeyu mbilu programme bi tungu ne du tew ñuy natal comme mom mi ngi fi je crois que ne man dama koy introduire rek nuyu ko santal ko tatagal ko ci turu maire ak adjoint au maire yëpp ci turu conseiller yëpp ak turu wa commune de Yoff wala bok turu wa arrondissement wu almadib bi ñu koy nuyu diko ziar diko tadagal ubil ko rek lay def man ndax laataa nga jox kàddu comme yow yaa fi teewal commission bi nga xam ne économie solidaire ci weer ñu bëggoon xam ban solo la am économie solidaire ci politique bu maire fii ci Yoff ak tamit impact bi nga xam ne mel ndaje gi mel mun na am ci fànn surtout fànn de développement xam nga sama damay sawar tontu ci parce que dafa dogal daf ñu jox maire dafa am solo bu mu jox jigéen ndax moom dafa ne ne rek wax nga li ne ci famille bi te nee na soo da ngay wax def économie da ngay defar nit ki pour nga am benn économie boo xam ne bu stable la buy jëriñ nit ki la dangay defar nit ki ba pare boo defaree nit ki di nga mën a dugg ci programme économie sociale et solidaire parce que loolu ngay mën a def pour mën a suqali sa gox gox bi dafa am noo xamante ne noonu la tëddee te su ko defee da ngay daal di miser wu ci ñi nga xamante ne mooy cible bi nga xam ne wóor na la ni boo ko amee rek ñàkkoo dara defar leen ba nga xamante ne bii nii boo tegee loxo ci ñoom rek économie bi dafay daal di dem te su ko defee ko day daal di am kon maire daf ko jox benn place bu rëy rëy rëy rëy ci li nga xamante ne moom lay liggéey. commission bi atelier bii nii benn pas bu ñu def ci préparation wu fa ñu jëm. fa ñu jëm mooy fan mooy forum mondial bi nga xamante ne ville de Dakar moo ko war a organiser mais suñ ne ville de Dakar commune yi ñoo tax ñu wax ville de Dakar donc ñuy dugg fi ne nii ci commune d' arrondissement yi di waxtaan ak ñoom di leen xamal lu nu xamul di leen fàttali loo xam ne xëy na xamoon nañ ko sax waaye dañ ko fàtte ak vraiment nan la ñu war a mën a def ba nga xamante ne bés bu ñu jógee ci forum bi rek dina am jeexital ci commune yi yëpp nag loolu mooy waral tey atelier bii nii. waaw xam nga bu ñu nee économie sociale et solidaire rek nit lañ wax nit xeyna so gisee ñi ëpp fi xam nga goor ñi moom léegi mooy lool bu dañ daan sos jigen ñi di mottali waaye léegi jigen ñi ñooy sos moo tax gis nga gis ñu néewu fi mais ñoom ñëpp la concerné góor ak jigen képp ku yëngu ci luy suqali nit ki rek ci lañu bokk loolu duma ci xus torop ndax directeur mi ngi fi moom moo defe naa moo gën a habilité pour mën a wax ci loolu

asalaamaaleykum man maa ngi tudd Abdoulaye Sylla euh, di directeur de la planification et développement durable à la ville de Dakar. waaw solos atelier bi mooy euh, dañoo àdduna moo am nu muy doxee fii toll ñu doon dox ci lu ñuy dox ci économie wu capitalisme mooy daanaka rek bopp sa bopp kenn ku ci nekk liggéeyal boppam. ngir mën a dajale ba am lu mu fajee ay aajoom loolu nag dafa am beneen alternative boo xamante ne ci Sénégal depuis ci suñuy maam ba tey ñu ngi koy doxal muy ay mbootaay ngir gis ni kenn ku nekk mën ngaa li yëngatu ci sa yëfi bopp waaye booloo mooy doole ci la mbootaay yooyu tàmbalee di sosu ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk xam nga ni say waaj sa sa maam da nga ko cee fekk wala ak sa yaay loolu di dox ba tey ji tubaab yi gis ni ndax luy boole la te lu bëri njariñ la te luy lijjanti problème yu bëree bari la ñu tuddee ko économie sociale et solidaire biñ ko tuddee économie sociale solidaire ñun ñu gis ni ñun ndekete loolu ci lañ nekkoon Sénégal jéego yu am solo yi nga xam ne def na ko ci nguuru Sénégal jël euh, dogal def ab loi bo xamantene day teunk ak organiser économie sociale solidaire ci Sénégal jël ci décret jël ci ab loi bo xamantene dañ ko voter à l'Assemblée nationale kon lepp lo xamantene day encadre économie sociale solidaire ci Sénégal bi yoy yep dajaleek mu don ay atu yu am solo bi ñuy tànn dëkk bo xamantene mo wara abriter le forum mondial de l'économie sociale et solidaire Sénégal moo gënoon a positionné a ci anam recevoir Dakar ville de Dakar postulé ville de Dakar moom va accueillir le forum mondial de l'économie sociale solidaire du 1er au 6 mai 2023 Inch'Allah Ce ci nous nous ñu nous faaw ñu am ñun loo xamante ne moom la ñuy mobilisation sociale mobilisation wu femmes et groupement yëpp rek au sens large ñi faaw ñu tenir ñun ni politique euh, de développement de l'économie sociale solidaire fi ci diwanu Dakar département Dakar ci lolu nak lañ nekk ngir waxtaan ak groupement yi ñu wax fan liñ ci lan lañ démarré ci lan lañ tambalé fan lañ ci ak lañ gis ni euh, lañ def ci seen ak ku a ci ban buntu lay jaar ba muy ateeb saytu bi ci lañ toll mooy moo tax ba euh, mardi ñi ngi woon ci arrondissement des des Parcelles Assainies mercredi ñi ngi woon arrondissement démb ñi ngi woon arrondissement Grand Dakar tey ñu ñëw arrondissement des Almadies defee jotaay bi fii ci mairie bu euh, bu Yoff di sant monsieur le maire Seydina Issa waaw moo tax bi may tënk bi may ubbi jotaay bi sànq dama ni leen ñëwuñu ci ab assise ñëwuñu tamit ci ay plaidoyer dañoo ñëw ci benn jotaay boo xamante ne du du financement la yor indi ko loolu na leer waaye dañoo ñëw ngir tënk lan mooy jafe-jafe yi ba kenn kuy jëfati mën caa jëf mu mu amal njariñ ñi nga xam ne ñoo ci yëngu loolu mooy plan bi kon euh, looloo ñu tax a jóg te ñi ngi ci yaakaar naa léegi ñu commencé restitution yi ngir tamit góorgóorlu ba fexe ba jox kàddu ñi nga xam ne ñoom ñooy def liggéey boobu kenn ku nekk ci ñoom wax ñu lan moo wutee yoon wi mu jaar ca Ngor ak euh, keneen ka ki mu jàkkaar lool yoon ba mu jaar ca Yoof xam-xam boobu suñ ko séddoowee dinañ mën a gën a dem ca kanam ñu wax ni économie sociale solidaire moom mën na exister sans banque daanaka loolu mooy yitte ji sax mooy nan la ñuy fexee ba éviter sax le maximum ay banque moo tax sànq may wax di leen wax ni su ngeen di laaj ay financement banque ak banque yi prêt yeeg taux yeeg yooyu dafa ëpp ñàkk ko li ñu tax a jóg moo loolu la waaye liñ bëgg ci économie sociale solidaire mooy ngay bañ a dem di lebi ñu di la jox ay taux 9 pour cent ak pour cent 7 pour cent yéen yéenay am seen dara ñi ci war a jàpp muy nguur geeg leneen ak leneen ñëw jàpp ci loo xamante ne dañ leen koy abal ci taux boo xamante ne daanaka ab leble boo xamante ne bu bu dul teg dara lay doon ngeen liggéey muy wër di di ne loolooy solidarité bi di jur di jur jur di jura jur di ba dina mën a gën a mën a taxaw yitte ak yéene yi nga xam ni moom la nit ñi am ci seen activité yooyu suñu génné ci atelier bi dinañ tënk euh, téere bi fii ak weer incha allah suñ koor gi rek daal def atelier de restitution technique bi soga def atelier de validation bi nga xamné dina doon sax danaka ben préf bu mag bo xamante ville de Dakar dina ko organiser inshallah allah jërëjëf. merci beaucoup merci merci madame le maire merci beaucoup. voilà asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Yoff asalaamaaleykum membre yu MEGSI man euh, Abdoulaye Ndiaye ñu gën moo xam si abu Ndiaye ma nekk directeur général de la MEGSI maa ñëw pour waxtaan ak yéen waxtaan yu ndëg li ko waral mooy euh, MEGSI day jëm assemblée générale le samedi 18 février 18 mars bi nga xam ne moom mooy ñëw si place Pencum Yoff donc assemblée générale bi nag day loo xam ne day ñëw annuellement ñu bëgg assemblée générale bu jotee ñëpp képp koo xam ne kii da nga nekk membre nga ñëw assister ko li nga koy assister noonu dafa am solo lool parce que ñun dañu am rapport yoo xam ne dañu koy def mu war a am feuille de présence ñu di ko yóbbu si autorité yi gën a kawe si finance muy euh, direction de la réglementation mu nekk ministère des finances ak euh, BCAO donc rapport bi ñu ko defee dañ koy yónnee foofu pour ñoom ñu xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñoom moom mutuelle bi muy membre yi xam nañ li xew bu keroogee nag ku fi ñëw di nga gën a am ay information sur le plan financier di nga xam MEX yi lan la liggéey bi nga xamante ne sos nañ ko ak léegi li mu liggéey di nga xam di nga xam lan mooy ay résultat am di nga xam personnel personnel bi li ñu comporté woo di nga xam dirigeant yi nga xam ne ñoom ñooy jiite kees gi mu jëlee fa leen ne assemblée générale daaw lan lañ liggéey si diggante bi donc loolu moo tax ñu bëgg ñëpp ñëw voilà képp koo xam ne kii sax nekk ko membre sax te nga xam ne bëgg nga am information boo ñëwee dinga am information yu doy si beeg loolu mooy li nga xam ne moom moo ko waral ñu li wax ne le MEGSI ñu ko sos le 16 mars le 16 août 1997 donc depuis le 16 août 1997 ba tey ñu ngi liggéey si biir Yoff muy màgg ñu ngi ko lawal feneen ba tey mu dem ba Saint-Louis dem ba mbooro di jari ay nit foofu dina am ay waaye fi yoo xam ne dañuy liggéey côté yooyu bu dee Mboro par exemple am na waaye yooyu fa nekk dañuy nekk foofu di liggéey seen xaalis bu ñu ko liggéeyee dañu koy dugal seen compte bu ñu ñëwee Yoff récupéré donc ñi ñenn ñi aussi dañuy dem Ndar liggéey fa liggéey fa ma réer par exemple liggéey fa dugal fa sa xaalis boo ñëwee Yoff nga jël ko wala nga liggéey Yoff nga dem foofu nga jël sa xaalis loolu yëpp ay possibilités yoo xam ne defal nañ ko membre yi te membre yi aussi ñoom seen bopp dina am ñoo xamante ne dinañ jël parole jour yooyu def ay témoignages am na ñoo xamante ne mag si defal na leen lu rëy si ñoom euh, maanaam aidé na leen ba ñu am loo xam ne lii xalaatuñu woon ne dañ ko am ñooñu ñëpp dina am ay nit ñoo xam ne si ñoom individuellement kenn du leen sas mais ñoom ñooy jël seen responsabilité ñu ñëw waxal seen boppa donc affaire bi daal oote la oote la si turu Megsi oote la si turu waa Yoff di leen xamal ne seen institution bi nga xam ne yéen a jur tett ko mu egsi fii mu xewle na te bu xewlee da ngeen si war a taxaw loolu moo tax ñu def appel bi képp koo xam ne ki ne membre nga ñëwoo rek vraiment en tout cas defoo li nga xam ne moom mooy moo ñu gënal ñu li ñu gënaloo mooy ñëpp teew ñëpp a teew ku mën a ñëw jël parole wax wax ju baax ku gis loo xamante ne dañu koy def aussi te du noonu nga ñëw wax ne li ñuy def nii meeg si gis naa fa nangam ak nangam te dañu koy doxal du noonu parce que moo gën nga toog sa kër rek naan meeg si ni mu baaxul keneen naka gën keneen naka da ngay ñëw nga indi sa contribution yëf yi yëf yi bi la dafa nekk loo xamante ni ñëpp ñoo ko bokk magazine ñëpp ñoo ko bokk waaye yëpp ñoo ko bokk ñenn ñi yëguñu ko mais ñu si la ñi ko moom lañu bokk magazine dafa commencé 0 franc si biir yoo ba tey li mu yor si xaalis mën na 3 milliards mën na 3 milliards loo xamante ne li mu ko yor si patrimoine di ko gérer te loolu ñen ñoo ko moom ñii dëkk si dëkkam ñoo ko moom bu fekkoon ne magazine nekku fi xaalis boobu fan la jëm magazine at mi dina leble lu ma 2 milliards dina jël ñi leen lebal ñu liggéey lu ma 2 milliards si xaalis loolu bu fekkoon ne médecine nekk bi aussi fan lañ jëm ak loolu est-ce que ñooñu ni mën a faj si defal seen projet donc ñi fi liggéey aussi lu ma cinq personnes ñoom ay waa Yoff lañu ñi si ëpp loolu tamit day dimbali dëkk bi day dimbali dëkk bi donc création emploi day am foofu donc ñun en tout cas daal lañ fi nekk pour defar dëkk bi moo tax ñu bëgg assemblée général bi ñëpp ñëw jàppale jàpp si waaw gis nañu ne vraiment waa Yoff bëgg nañu meeg si gëm nañ ko mais dañ bëgg mu gën a yokk comme ça ñu gën a am ay ndam waaw li nga xam ne li ngi li si am solo yëpp daal di ngeen ko dégg découvrir si jour assemblée générale bi donc loolu mooy appel bi nga xam ne moom laa doon def si turu conseil d' administration bi comité de crédit bi ak conseil de surveillance ak personnel MEGS bi yëpp si seen tur man directeur MEGS yi maa ngi wax ne ñëw leen ngeen assister ngeen jàppale ñu wasalaam. est-ce que da ngeen am beneen programme no fi mu nekk ni benn programme bi kese moom moo teew moo jot waaw bii dañ ko bëgg a song bañ a dugg si beneen mais perspective yi nag danañ ko wax si assemblée générale bi assemblée bi day am point yoo xamante ni organe bu nekk bu defee rapport am ba pare day wax ay perspective fan la bëgg a kees gi ëllëg donc loolu si assemblée générale bi dañ ko mën a waxee mais mu ñu ko waxee tey day day jiitu euh, mbir yi waaw merci si si si waaw waaw kañ lañ ko sos. yi fii lañ ko commencé. tóngoor lañ nekkoon am fa benn gise bu ndaw benn boutique bu ñu luwee woon foofu rek def fa affaire yi donc affaire yi màgg fii ñu nekk nii tey daf nekk siège bi ñu ngi fi ñëw en mille 2002 donc fii 2002 lañ fi ñëw. ginnaaw gi Tongoor aussi tabaxaat nañ jënd am na fi benn point boo xam ne am nañ ko fa tabax ko finalement Megsi moo ko moom marché bi Yoff si booru marché bi am na foo xamante ne fii Megsi moo ko moom da ko aussi donc ñettaa ngi yoo xam ne Megsi da jënd am na benn gise boo xam ne mu ngi nekk si booru autoroute bi boobu Megsi jënd ko mais da donc si booru Philippe Senghor am na benn boo xamante mu ngi foofu boobu Megsi da ko loué boo demee Mboro am na gise boo xam ne moom moo fa nekk Megsi moo jënd suuf si tabax ko ñu di ko lii personnel bi nga xam ne aussi ñoom ñoo fay liggéey te jóge Yoff fa lañ leen loger voilà boo demee Saint-Louis dañu am foo xam ne kii dañ ko loué dañ loué fi nga xam ne fa lañu nekk di fa def ay opération si bi gendar personnel bi fa nekk dëkk dëkkuñu si même bâtiment bi mais am na foo xam ne utal lañu ko aussi jox leen fa ñu dëkk fa parce que dañ leen jëlee Yoff yóbbu leen Saint-Louis ñu xelaat ne dëkk bi foofu dina difficile moo tax ñu defal leen condition yooyu donc mais yi foofu la nekk actuellement nekkul si biir Dakar yëpp mais nag terewul ay nit dinañ jóge bari ñi ñëw fi ay nit dinañ jóge Médina ñëw fi fu nekka la ay nit di jóge di fi ñëw parce que MEGSI am na compétence sur tout le territoire national xam nga boo utee boo nekkee mini kii mutuelle da ngay am agrément ministère des finances moo lay jox agrément agrément boobu dañ siy délimité fan nga war a def activité waaw fan boo ne boo ne man suma activité commune de Yoff rek lay am doo génn commune de Yoff amoo droit dans ce cas nga génn ko mais ñun suñu agrément may nañu ñu intervenir partout au Sénégal ñun man bu ñu neexoon tey am xaalis mën nañoo dem Fouta ubbi fa benn mutuelle mën nañoo dem Sine ubbi fa benn mutuelle loolu yoon may nañu ko mais nag ndànk-ndànk mën naa am ñu egg bu sori parce que ñun extension bi ñuy def noonu du bare ay dugga-dugga dañ koy def parce que bu ñu màggulee noonu bu ñu mën a créer ay emploi duñ mën a développer yëf yi nga yëf yi pour nga développer ko il faut ngay teg ay tànk si biti ndànk ndànk tey 35 emplois yi ñu am bu fekkoon ne ñun dañ yem yoof rek nekk tóngoor fa la ñu jëkkoon nekk rek kese am benn poste boobu benn kii boobu bureau boobu bon duñ soxla 35 emplois bon tuuti emploi la ñuy soxla voilà donc da il faut ñu ñu comprendre ne génn bi ñuy génn noonu c'est pour grandir c'est pour grandir pour mën a gën a mën a tax yoo fay mën a am ay emploi voilà dina am nag jariñ nit ñi Sénégal lañu dëkk mën nañoo jël Sénégal bu nekk mais bu ñu amee bénéfice aussi boo xam ne dañ ko am saint dañ ko am feneen ak feneen day ñëwaat fii encore fii lañu koy réinvestir da si bari fële mën nañu faa def ay action sociale mais li ñuy def action sociale si biir Yoff moo ëpp waaw donc le mot de la fin mooy juste invité waat nit ñi oowaat leen oo leen pour ñu ñëw si assemblée générale bi góor jigéen mag ndaw ku am ab compte ku amul compte yëpp na nga ñëw ñun tàmm nañu Euh, même assemblée générale bu ñu assemblée bu pare si biir assemblée bi danañ def quelques tirages de billets bon bon d'achat, ay bon d'achat de 25000 francs yo xamné dañ koy def waaw bu ñu la ñibi ñu jël euh, une cinquantaine de personnes une vingtaine de personnes defar ay tirages au sort jox leen ay bon d'achat de 25000 francs voilà donc 25000 francs yo ñu leen jox ñu ngi koy jóge ci jëlee ci résultat MEGS ci résultat bi nga am nañ ko mu baax lañuy di ko distribuer waat population pour ñu xam ne lii seen yëf la lépp lu fi génne seen njëriñ la voilà merci beaucoup. xalaat yooyu ak loolu yëpp ci benn téere ci benn plan plan bi tamit liñ ci bëgg rek mooy li ngeen ciy wax seen xalaat yu rafet yooyu ñun moom lañ ciy bind rek ngir su ëllëgee mu doon yéen seen ju si wàll wi soo paree dem si objectif yi li ko tax a jóg li tax a jóg atelier bi

si ñoom ñu jéem a góorgóorlu ba bind téere bu ñu seet ay de financement yu efficace yu innovant yu plan bi muy dinañu waxtaan ak nit ñi sensibiliser leen jéem leen seet nuñ teg leen si yoon boo xam ne dinañ gën a waaw liggéey bi yàgg na tàmbali dañu commencé woon par def ay tournée muy trouvé de commission de cinq dem nañ si arrondissement yi euh, parcelle lañ njëkkee ñu dem arrondissement wu Grand waaw maa ngi leen di